Linguère xale ci mbër yi yaa daan maa daan moo daan coow li genius comedian who can get people laughing and has the humor that cuts across. Damane, can mo amfit fit pour taxaw life? ree nga ree ñépp di All you have to do is to text comedy C O M E D Y on 2020 200 30 30 300 60 60 600 and 999 0909. Participants are invited in Mandinka, Wolof and English. Gambia's funniest coming soon. Just text and we will call you back. مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا و... الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله وعده صلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيد المجاهدين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصعبة الحر الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل حقدة من لذان يفقه قولي mbokki جلدي yi ينجاكار لول waaye mbokk yi nga xam ne ñoo miin a seetaan programme xam-xam le ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo yeeyoo ñu sant ko waaye tamit mu digale it ne nañ koy sant waaye bu ñu ko santul woon it li mu def rekk jëf jooju sant na ci boppam ñu julli ci yonentu bu tedd bi nga xam ne moo njëkk julli ci moom moom yàlla digal malaaka yi ne nañuy julli ci moom mu wëlbati wax ne képp koo xam ne gëm-ngëma na nga julli ci moom ñu ñaan salaatu ak salaam boobu yal na bu mu dañ mukk di nekk xéewal ak mucc ak dolleekuk leer ca barzaq di fa fekk yonent bi sallallahu alayhi wa ali ak i ak ñi nga xam ne jaar nañ ci yoonam ñoom ñëpp yal na leen yàlla gërëm ba bés pénc mbokki julli di ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di ndokkeeli tamit ci seen buntu programme xam-xam le di leen ñaani tamit ne na ngeen ñu dégloo xel te bañ di ñu dégloo xool ñuy ñaanit lépp loo xam ne rëcc rëcc la ngeen jéggal ñu ko te xam ne alkamaalu lillahi yàlla rekk a mat su ko defee nag ni ñu leen ko baaxoo rek di waxee dinañu ziyaara mboolem réew mi waaye ñu jiital ki yàlla teg ci bopp réew mi muy seex professeur alhaaji docteur Yahya Ejeje Jammeh suñu ko ziyaara ziyaara nañ mboolem ku nekk ci ronam rek ak mboolem kuy liggéey ci wàllu administration waaye dinañu ziyaara yi tamit mboolem jullit yi waaye ñu ziyaara yi tamit mboolem kilifa diine yi waye ñu ziaré it mboolem taalibe yi ñu tek ziaré bobu ci loxol fadilatu sheikh al imam al akbar imam charno ali al muaska suñu ko ziaré ziaré nañ a imma yi ak azatisa yi nekk ci dëkk bi mbokk jullit yi seen programme xam-xam le programme la bo xamné day yitté wo rek dundu doomu aadama yi lépp lo xamné lu jëm ci walu mbax la programme bi da ciy gën a tàbbal gémmiñam ngir jullit yi sàlloo ko waaye lépp loo xam ne itamit dafa dëgmal safaanuk mbaax programme bi da cay jubale gémmiñam rek ngir xàjji loola ba jullit bi bañ caa dem waaye tamit mu gaayit jullit bi ci wàllu diineem waaye ci wàllu dund àddunaam waaye ci wàllu mboolem loo xam ne ëmb na environnement bi jullit di dundee su ko defee noonu rek lañu koy defee di ziare mbokk yi nga xam ne nag ñu ngi seetaan topp programme bi niñ leen ko baaxoo di waxee fii ci biir réew mi ak ci bitim réew yépp képp koo xam ne sàlloo nga di topp programme xam-xam la ñu ngi leen di ndokkeel ah, di wax ne rek am na sunu mbokk yoo xam ne ci biir réew mi duñu mën a lim tur yi ndax bari ba waaye ñu bari ñu ngi dajeek ñun di wax ne ñu ngi topp programme xam le naka noonu ci biti sunu mbokk yoo xam ne ñu ngi nekk fële ca Bahreyn waaye ak sunu mbokk yoo xam ne ñu nga nekk fële ca jodaan ak sunu mbokk yoo xam ne ñu ngi ci mboole gox rek yu fasanti ko caat nañ ku ci mel ni Omar Day Ñang ku ci mel ni Cheikh Ñang rakkam ak Abdul Aziz ñoom ñëpp rek ñu ngay topp programme bi ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziyaara ci programme xam-xam le su ko defee mbokk jullit yi su ngeen fàttali ko sunu programme bii passé ni ñu doon waxee ak yéen rek ba tey it mu ngi doon dem ci wàllu jikko waaye diggoon nañ leen ne sunu programme bi di ñëw dinañu jël benn tomb ci ponk yi nga xam ne yàlla moo ko faratal ci julit yi nga xam ne ñoo ci àdduna bi su ko defee rek nanu leen ko diggee woon incha allah dinañ ci dikk ak yéen waaye mu benn nuxta boo xam ne muy tomb boo xam ne bëgg nañu cee ubbee ak sunu mbokk jullit yi rekk doog a jàll ci programme bi nga xam ne moom lañu leen diggoon ci wàllu aj ak farata ya ak sunna ya su ko defee ñu ngi doon waxtaanaante ci ko ne doom aadama bi war na di bàyyi xel ci jikkoom ni nga xamee ne ni la sëfoor bi waree bàyyi xel ci otoom ba lépp lu ciy paan mu fexe ko dépanne maanaam fiita bi lépp lu ci aju mën na koo defar nga xel bay bàyyi xel ci say paan nga di ko yóbbu ci fiita bi fiita bi di ko defar su ko defee rekk noonu tamit ci jëmm ji nga xam ne yaa ngi bàyyi xel waxtu woo ci yëgee lu la métti da ngay dem ci docteur bi dal di koy faj wala nga dem ci sëriñ bi mu daldi lay defal garab nga am ci yaakaar ba yàlla def ci tawfiix mu dal di wér kem noonu tamit sa yére bi ngay sol waxtu boo ci gisee tilim walla taas da ngay dem yóbbu ca kay fóot mu fóot ko wala yow mi koy fóot nga fóotal ko sa bopp su ko defee nag noonu lañu bëggee doomu aadama bi di ndàggee ay jikkoom noonu la ñu bëggee muy setalee ay euh, setalee ko xolam waaye mu fexe ba laabal ay cëram ci lépp loo xam ne lu jëm ci tilim la wala lu jëm ci feebar la wala mu jëm ci lépp loo xam ne lu yàq jikko doomu aadama la su ko defee rek loolu dinañu jox xel ñu wara xelaat ne jikko doomu aadama yi ni ñu ko gisee ni ñu leen ko waxee woon mooy doomu aadama yi li ñuy ooyee valeur mooy dignitis mooy julit yu bari dañu perte seen dignity julit yu bari dañu daw seen responsabilité mooy cër bi nga xam ne ñoo ko laajoon seen borom ba mu jox leen ko dañuy daw responsabilité boobu ba du ñu taxaw jàkkaarloog seen mbokk jullit yi matal seen kóllëre seen diggante ak jullit yi loolu moo tax ñu bëgg rekk di ñaan mboolem jullit yi nañu bàyyi xel ci waxtaan bi tey ñu ñaan leen ñu déggee ko ci ngir yàlla rekk ak yonentu bi ngir jubale ci loo xam ne dañu am yaakaar ne suñu ci waxee xëy na dana indi ak leeral ci diine mooy ne la réewuñu mbir ne coow lu bari mu ngi lëmbe ci biir Gambia ak ci biti Gambia ñuy wax ne am na ay doom aadama yoo xam ne dañu leen àtte ci gis ne jël nañu bakkanu doom aadama ni ñoom ñu war leen a àtte jël seen bakkan kem ni ñu jëlee bakkanu doomu aadama yooyu su ko defee mu indi ay wax yoo xam ne ah jullit yi am nañ ci position boo xam ne moom lañ ci war a taxaw